jërë ngeen jëf xibaar bi Vox Populi xëyee ko ci xëy yam ba yam ci ni mu ñu ko xibaaree sa àdduna si séppay tukki yéenekaay bi ñetti doomi aadama ñoo faatu démb ci l'accident buy am fay tolloog bu Ngor ci autoroute bi ñaari camion yu yeboon jën ñoo doon njëkkante mbëkkante ba far fa ñetti nit am yeneen juróom-ñett yu ca jëlee gaañu-gaañu journal bi dem ci ba di xamal ne juróom-ñett yooyee ca blessé am na ci juróom-ñaar yoo xam ne seeni blessure maanaam seeni gaañu-gaañu dafa dem ba jéggi dayo ñaari chauffeur yi doon dawal camion frigorifique yi Dakar la woon l'observateur ne ko ndaw soose bokk ci ñi faatu ci accident démb bi nday mamma maani la tuddoon amoon fanweereet ak juróom-ñeent bàyyi na ci ginnaawam ñaari doom keneen ko faatu it ci accident bi woon démb moo di waaj yi di Mansour Koli amoon ñeent fukkeet ak ñaar dëkkoon ca jàmm gën nord doon liggéeyee ci société gardiennage bii di sagam kaleen ñetteel mi ngi tudd Ahmed Si ñaar fukki atam matagul woon ab apprenti chauffeur la woon dialogue national bi ñuy wax a Ibrahima Sagna mi ko war a jiite suddu gis ci ne président Macky Sall activé na ab équipe soleil national xëyee ñu lan ci kàddu yu mu nangoo ci président Macky ci ndajam démb mi mu di li mu ne nañu waxtaan waxtaan wu tegee ci liberté ak responsabilité ñi fara ci opposition bi yéenekaay bi nee nañu wax nañu ne li ñuy séntu ci dialogue bi moo di lu jëmale réew mi kanam ci wàllu démocratie ak it ci dundinu askan wi président Famara Ibrahima Sagna ni mu grand place nañu Macky Sall ak diisoo ga mu doon woote manga ca tàmbale na ko ka mu ko dénk ngir mu war koo doxal di Famara Ibrahima Sagna journal bi nee nañu wax na démb ne daje di xulo ak di defanteeka fantasiro taxul ñu woote dialogue bi noonee mu ko waxe noonee la ñu ko l'observateur xëy jottale mu di woote wu ñu waxtaan wi ngir kenn di fi ñëw di xiiroo ak di ŋaayoo xalifa Ababacar Sall ma demoon démb seeti góor gi Abdoulaye Wade lise ko baaxee nañu lenn ca la ñu fa doon waxtaane Abdoulaye Wade nee na Khalifa Sall réew meeg li fam te jaaduwul ndaw ñu ñoo ko fi mën a jëlee bu jaree sax ñu bàyyi ci seen bakkan ku ci nekk ci ñun war naa jël ay responsabilité am ngir xeex ko mu jóge fi Le Quotidien mel ne ku naan ñu góor gi yéy na nopp Xalifa Sàll Abdoulaye Wade sol na Xalifa Ababacar Sàll ba mu fees dell ki ay noppam doon riir démb sur soi ne nañu moo di ministre de la justice garde des sceaux ne projet de loi bi jëm ci criminaliser viol la doon waxtaane démb ak député yi waaye député yi fare ci ku jëg politique yi mayuñu ko dara ku ci mel ne Mamadou Lamine Diallo bu tekki dem na ba naan ko projet de loi bi ngeen fi indi du dara yëf yi ay naxe la gën a nurool lii dëgg mi ngi ci la Sénégal journal bi benn agent ASP bu ñu affecté woon ca kër Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre ngir wàllu sécurité ASP ba la ñu jàpp muy tux yàmba